liggéey bu réy bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké liggéey na ko ci wàllu communication bu jëm ci màggali Touba yi nga xam ne cérémonie officielle yi ci am moom moo fa yor kàddu xalif général des mourides mu tàmbalee ko nag ci màggalu 2009 euh, ba ci 2023 bi nga xam ne moom lañ génn di ñaan sun boroom mu gërëm liggéey bi lépp te mayaat ñu ñu fekkewaat at yu gën a bari yooyu Cheikh Mamadou Bassir ñu tànn ko ci mu yore kaddu xalif général des mourides ci xilaaf ak alxaaji Mouhamadou Lamine Baara Mbacké ci atum 2009 bi di màggal gi mu njëkk organise di ci def ay discours yu am solo ak ay réalisation te danañ ñëw ci yooyu yëpp waaye li ñuy njëkk ak yéen ci vidéo yi mooy jàngat discours yi discours yu njëkk ya discours yi ci dëkk digg bi ak discours yi nga xam ne ci lañ toll fii ñu toll lépp jëm ci mbirum sëriñ Touba ak Xaadim Rasoul kon dañuy ñëw ci màggal gi nga xam ne Alxaaji Mouhamadou Lamine Baara moo toog di xalif général des sëriñ Serigne Mountakha toog di jëwriñam ministre Madické Niang toog di ndawul njiitul réew ma di président Abdoulaye Wade ñu déglu discours bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Bachir mu Cheikh Abdoul Khadir def indil ñu ci njàngaleem sëriñ Touba ak i ndénkaaneem ñu maa si déglu discours boobu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi bokki taalibe murid yëpp. maa ngi leen di di leen dalal jàmm ci turu suñu kilifa sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne mooy jéew nañu sëriñ bi di suñu njiit ci liggéey bi di leen jottali ci turam ngërëmul sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké xalifatu général di murit ak cantam ci seen taxawaay bu rafet ak seen yitte ju ci bisu sëriñ Touba bi nga xam ne sëriñ Touba moo digle woon ñu sant la ko ci yàlla ndax li ma bëggoon lépp ci saw bés bis bii la kaw muy tukkee bu tedd boobu doon ndax mooy bis bi nga xam ne ci la fi jóge woon jëm ca tukkeem bu tedd boobee nga xam ne zahir sa daa mel ne am na la waaye baatin bi nag lépp yiw la moo tax Sëriñ Tuuba ba mu jugee ca tukki ba ba ñibbisi ba àgg kër ba àgg sann kër Sëriñ Sirilo am na mel na mbokkum taalibi mu ko laaj ba xam Mbàkke mu tukki mu tukki bi def sëriñ bi na ko bu ma demutoon dara du ko jar sëriñ sëriñ Tuubaa nag waxaloon na boppam ne bi may dem ci géej gi damaa meloon ne ku nuyu ko amee xet ku nuyu ko amee xet laaj ko lañ mu bàyyi xet gi ci sama loxo nee na ku ma gis ku ne nag ne ma faaw nga may ma laaj ko lañ te nee na boobu waxuma laa di am laaj ko lañ waaye xawma fa laaj ko lañ nekk nee na man na ko man na kon nag lii nga war ci man mooy fexe ba am laaj ko lañ mu ne waaye boobu liimaan ak lislaam ak lixsaan ñeewuma ci nabiyul mursal ñeewuma ci malakul muxarab Sëriñ Tuubaa bi muy dem ci géej gi lenn ni boppam taxu ko woon a dem ndax bi muy négocier yoonu géej gi ci daarul xudóos bi muy def xalwatu bi fekk na mu am Tuubaa am daaru salaam ak li ñu làmboo ci mbot am taalibe yu bari yooyu ku mu ci gërëm mbooloo mu bari topp na kon kenn mënu ko waxal lu mu soxlaal boppam lu muy wuti ci géej gi lu muy lu may liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li tax mu nekk xadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo may sëriñ Tuubaa jëfam weesu jëmmam moo tax tubaab yi tey jëmu ji te mën sanob jëf ji moo tax boo gisul jëmu ji itam jëf jaa ngi wéy loolu moo tax mu ne man duma faatu ndax sama jëf du dog te sama wërsëg du taxaw te du jeex yuallimu alxayu allasi laysa yamut alxalqa anni abadan lastu amut bis bi nag Serigne Touba li ma bëggoon lépp ci la ko yàlla defal li ko ci yàlla defal nag firndale firndale ci bokk na ci la amee gaaraatu doon jawru ñi yonente bi sallallahu alayhi wax ne allamani rahmaanu fi safina bi anna nii xadimu sil madina jërëjëf mbokk yi ñoo jot a dégg discours boobu weesu di ci xilaaf ak alhaji Mouhamadou Lamine Baara mu ñëw rek ci ñaareelu discours am ci xalifa Cheikh Mahamadou Lamine Baara ñu jéglu ci bokk yi nuyoo bi njalbeenu discours bi xam nga vidéo yu yàgg yi waaye dañuy ñëw rek ci ndénkaan yi ak tomb yi nga xam ne génne na ko ci discours bi wax ne njàngaleem Cheikhul Khadim la ak loole fi jamono toll ñu xool ko ak fam ko doon waxee ci atum 2010 wala ci 2009 ndax am na ci màggal yu duggante su ko defee rek ñu teewluwaat Cheikh Mouhamadul Bachir ci façon bi muy waxee ak tolluwaay bi nga xamante ni bii ci la réew mi toll ci jamono jooju. Serigne Touba nag koo ko fi nekkal kon yàlla suñu boom da lay kon nag bala maa jeexal ci sant yi nga xam ne moom laa war a jëmee ci ministère bi rek ñu fàttali juróomi dénkaani yoo xam ne Serigne Touba daan ko wax. yoo xam ne sëriñ bi daa waxoon ne dañ ko jot li taalibe yi danaa wax ne bàyyi wax lu amut moo gën jàng alxuraan laa biire nit ñi moo gën jihaat bañ a fàtte dee moo gën naafile guddi daana wax ne lu la mën yóbbu ci yàlla lu ne buntu la lu la mënta yóbbu ci yàlla lu ne nag kiiraay la daana wax ne laab ñaari xet la laab gi tax a mën a laal alxuraan ak laab gi tax a mën a dégg alxuraan daana wax ne ku bëgg a topp ndigali yàlla yépp na jël lenn ci ndigali yàlla yi sellal ko te dëggal ca pare ca des yëpp danañ ko fekk si mu ne ku bëgg bàyyi tere yëpp na jël genn tere bàyyi ko te dëggu ca kon tere ca des yëpp danañu dem bokk na ci yërmandeem ju yaatu nag ak ëmbal gu mu ëmbal ñëpp aw yow la mu waxoon ne ko gis mbind mii na xam ne ku ki ko bind baal na ku ko tooñ te du du ñaan yàlla ab tooñkat te ñun mu ngi jéggalu yàlla képp ku aju ci moom te gëm yàlla tey li mu bëgg ñi gëm yàlla te aju ci moom moom lay bëgg ñi gëm yàlla te ajuwuñ ci moom daana wax ne bu leen jël seen jëf yu baax li ko jox gaañu baax ni te bu leen gàddul kenn ci way ñaawali jëfam yu bon loolu mooy bul ayibal ku baax te bul tooñ ku bon ndax soo ay ayibalee ku baax ñu jël sa lu baax faye ko soo tooñee ku bon ñu jël ay ñaawteefam jur la daana wax ne lépp lu ngeen bëgg sàkku leen ko ci topp yàlla lépp lu ngeen ragal mooy tooñ ko ci bàyyi mooy ku daw ci jëm ci ngërëmul yàlla li nga bëgg lépp daw jëm si jëw sëriñ bi nee na mi ngi fàttali bokk taalibe na fii jamono toll ci ay xat-xat te daj àdduna bépp ba tax ñu koy tuddee crise mondiale li ci war bépp jullit mu jële ci ak waar te xam ne waxi sunu borom du tuxu te noon na bu waa dëkk yi gëmoon te ragal yàlla na mu ware ma ubbil leen bunti barke muy xéewal di sottiku jóge ci kaw ak di ball jóge ci suuf waaye dañoo weddi ma jàpp leen seen jëf téye samay xéewal ci loolu nee na mi ngi digal ñëpp di leen soññ ñu gën a fóot xol yi te sellal jëf yi te moytu tooñante ci suñu biir ak tooñ sunu borom te sax ci tuub mi nga xam ne saabu la buy setal ci julli ci bépp taq-taq waaye goj la buy wëb bépp yiw te nag bu kenn naagu yërmaane yàlla ndax laa na taqnatu bi rahmatillahi lu xat-xat yi metti metti na ngeen ànd ak seen gëm ak seen sago te xam ne jafe-jafe jafe bu ne ak jàpp na la cee tegee ndax innamal usri yusran bu mu taxee kenn bàyyi lu baax loo daa waaye jéemal ba sës la jees nga yéene ko sunu borom dina ko àggale ci baaxam kon nag na nanu xam ne réew mi nun ñëpp noo ko bokk boo defaroo noo koy jariñoo bu yàqoo it noo ciy loroo kon nag na fi ñëpp di yéene lu baax te di fi wax lu rafet te fiy jëf lu jub muy dénk ñëpp ñi nga xam ne dañuy wax ñu leen di diglu ñuy fàttaliku ne al fitnatu naimatun laana allahu ay ayqaza te nag wax ci nit loo xam ne day yëkkati dëndam di tàng xolam ba man koo def loolu lu mu bëggul te naru koon loolu ci yee fitna la bokk te fitna joo xam ne bu jigee bu jigee yow mi ko yëkkate xam nga ko doo ci mucc jëru la kon nag nañuy wax nit ñi luy tax seen jikko di defaru defaru ak lu leen di ci liggéey ngir jariñ xeet bi bàyyi yàqante ay dara ak tuumaale te def ndigalu yàlla mu wax ne waxoo wax leen nit ñi rafet waxoo loolu naas xusna te xam ne atte nit ñi newut ci loxo jaam yi kon ku leen mënta labiré nga bàyyi leen ak seen melo te xam ne bisa nga ca kanam kenn ku ne da nga teew say jëf teew ñu jox la ko ci téere nee na jàngal boo noppee da nga mën a àtte saw yoon wi nag dafa mel ne daa ubbi coopérative bu jëm ci yàlla ci ngay jële aw jiw bàyyi ci tool bi yaa ñëpp soog a ber dem dem ci sëñ ba mu fay ku ne sa kem ku ne sa jëm xeeti fayoor yëpp nag ci loxoom la ne wan maa wal maliku wal maliku lasi lahu ko ajran kabiran wa sawaban wa jasa wal waxdu lii fi ramadana la jasa payoor yépp nag li leen wóotale mooy wóotale jëf yi ak yéene yi ak posté yi kon nag yoon wi mooy toolu sëriñ bi ci lees ko mën a liggéeyal te mooy ku ne la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom ni ko sëriñ bi digle di diglee waxtu wane ci jubaaj te ku ci jiite sa ku ci ku ci jiite sa morom nga lig ko te gën a farlu ci daayira seexul xadim ni te xam ne mooy toolu àllarba yi te ñu ne dayob Sëriñ Tuubaa da leen a jaaxal te amuñu lu ñu sikka ci jëmmam wala jëfam wala melom ñooñu lenn ci jëfi taalibe yi la ñuy fab di ko gàll ci kaw koddaayal yoon yi te loolu ak ñàkk xam la moo daloon tubaab yi seen digg sëriñ bi te ñoom seen jëm bopp wax nañ ni rëccu nañ ko loolu moo di suñu borom bi mu bindee ñëpp bu ko neexoon jubal ñëpp ñëpp gëm ko mooy li mu wax rek walaw shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an moo tax nag matari doomu aadama ci lenn ci nit ñi bu ñu ko jël gàll ko ci kaw yoonu murit comme ni ko occidentaux yi defe ci lislaam kon nag loolu mooy yoon yi bu ñu ko jaawale ginnaaw bu loolu jàllee nag sëriñ bi nee na mi ngi fàttali yi muy tere ci dëkk bi te muy loo xam ne sunu borom moo ko tere jaarale ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Tuubaa di ko yeesal ko mi ngi koy feddli di ko fàttali ñëpp tey xam ne lépp loo xam ne kilifaam yi daanañ ko bañ ci dëkk bi mi ngi koy feddli di ko yeesal ba tey Touba nag mooy xetaru Sénégal magistrat wax ne fi la réew mépp di nooyee ndax fi la bëggug lépp ci réew mi jëm fi la ñu fi ëpp dëkk itam Touba nag dafa tabaxu ci kaw système boo xam ne Serigne Touba moo ko jëkk am ndax économie am ak politique moo ko jëkk am ndax économie ak politique day bàyyi ko ci bëggug taalibe nit ki taalibe bi kenn du ko forcé ci dara yàlla ji mu ko wóor na mi fi mu yëg ko moo ko koy jaral ba tax mooy dikkal boppam te kenn du ko laaj kenn du ko woo muy joxe alalam te kenn du ko laaj te bu jure bu juree dugal ci loolu nit nag bu fekkee daane ci biir ba màggat ca di ca xiir njabootam da caa gis njariñ les chaudons mën naa fi alam kon nag alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf mbokk mi ñuy topp jërëjëf itam mbokk yi nga xamante ni bii yéen bàyyi xel eh, ginnaaw bu sun borom dogalee Cheikh Mahamadul Bachir ànd ak Cheikh Mahamadul Amin Baara ci at yu néew yooyu. sun boroom tànn alaaji Mouhamadou Lamine Baara mu dem dëkkale ji ak boromam subhanahu wa taala ñu ànd ak seex Mouhamadoul Bachir ci discours bi nga xam ne moom la Serigne Touba Cheikh Sidi El Moukhtar njëkk toog di xalif zaal de Mouride fam kàddoom yee salaat ko ci Cheikh Mouhamadoul Bachir mu ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñuy xool Serigne Bachirou cër bi mu joxoon mag ñi cër bii mu jox Cheikh Mahamadul Muntaxa ci jamono jooju nga xam ne ñoom ñaar dañoo ànd am kilifa dina ci agronome waaye moom sëñ Muntaxa di magam andit ndenkaane yi Serigne Touba yi nga xamante ne bii mi ngi koy wax ci discours yi nga xamante ne bii mi ngi koy jàllale muy lu am solo waaye rek ngir nafaraat rek yi wees woon ndax ñu mu man ñoo soññ ci yi ñu dëgmal moo tax ñu fas yenee ànd ak yéen ci discours yi incha allahu rabbi danañ leen ko toppal ci lépp mu jëm ci ndénkaani yi doon wax mu jëm ci Serigne Touba leen ci mën a jariñoo ba agsi ci at yi ñu nekk ñu maase déglu ñetteelu discours bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kilifa yi fi teewal këri diine yi ak yéen ñi fi teewal kilifa yi réew mi. ambassadeur yi fi teewal seen réew ak yéen mboolem gan yu tëdd yépp maa ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Touba ak Cheikh Sidi El Mokhtar Mbacké al xalifatul am li tariqatul muridiya ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy jëwriñam nga xam ne wax na li nga xam ne waroon nañ ko wax lépp dañ ci saraa rek leeral ko ci ndigalu sëriñ bi waaye moom mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ bi bu xasee ba wax rek képp kuy sëriñ sëtu sëriñ Tuubaa wala képp kuy mbokkum sëriñ Tuubaa wala ngay seexub sëriñ Tuubaa wala ngay taalibu sëriñ Tuubaa tàbbi nga ci biir kàddu yooyu ndax kàddu yi soññee na bu baax ndax toogaayam ak jëmmam rek doy na sëkk doy na sëkk ab soññee ndax fi mu teg sëriñ bi rek loolu war naa tax ñun ñëpp ñu gën a farlu gën a góorgóorlu bu baax sëriñ bi nag waxoon na ne bala ñoo tàmbali ci kàddu yi ñu fàttaliku magam ju baax ja ak cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke. cheikh Sidel Moxtar ci làmmiñam laa koy waxe ndax moom sa ni ma ko war a waxee ma jaare ko ci ni ma ko war ni ma ko war a ni bëggee ma waxe ko ni moo wax ma ne naa ko leerale noonu saraa ko waaye lii ma wax lépp kàddoom la yoo xam ne ci ndigalam laa koy waxe te ci làmmiñam yi laa koy waxe nee na loola taxoon Serigne Touba tegoon ko. ci kaw bennoo ak nangu kilifteef ak responsabilité nit ñi ak njiitu gu rafet te ku ne xam na ne moom mii loolu moo di doxinam nee na mu leen di fàttali ne bennoo gi yàlla suñu borom moo ko jëkk santaane wax ne wenn xeet ngeen may seen borom inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun dellu waxit ne yenn woy gëm yépp ay mbokk yenn na ngeen def ni ay bokk ware def ci ak yéwénoo innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko leeral ko wax ne jullit ak ak i mbokkam ñi ngi mel ne ay biir ci biiru tabax kenn ku ne xam ne sa moroom a tax nga ne fa al muminu lil mumini kal bunyaani yashuddu baaduhu baada loolu yi la Sëriñ Tuubaa jëmmaloon ci watem bi moo tax ñi ko wóosi woon boole woon seen bopp jaxasoo jàppante fàtte mboolem li leen wërtal woon ci ay cosaan ak i baax walla xeet ak i waaso ku ku ñu dajal ku ne it di xool ci yow la leen sëriñ bi digaloon te mooy waraay fii kulli xalqin xaq man xalqa loolu moo leen jural ku leen mas a gis ku ne ñeme leen ku leen miin ku ne jax ku leen miin bëgg leen ku jaxasoo ñoom dootoo leen mën a bàyyi jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun di ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mahamadul Mountakha yàlla na fi gën a yàgg gën a wér ñaanal Serigne Bassirou mu Serigne Abdoul Khadir mi yore kàddu gi yàlla yàlla gën ko sàmmal aw làmmiñam gën a leeral ab dënnam gën ko taxaw ba lépp luy yéene mag ñi suñ borom dëppale ko ak man-manam seen mbokk taalibe Fallou Gala Sylla moo àndoon ak yéen euh, Serigne Babacar Diagne moo nekk ci wàllu machine bi ñu leen di sant di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous